i la not gu ne muut. dina mon père. mon père. Ngoné. ah mon père yow tamit gaawal. ah mon père eu também yàgg nga ci dus bi ah ele dus bi waay. jaal bo bak jal siam jal masa ayre dogo sa sayar yow waro won yag ci bidu dus bi man mirna ba pare dina la xamal ñaar be ba xam nga ni goor deug nga yow rek la xam ci goor ku tak ñaari jabar ben bi di sénégalaise ben bi di tubab te nëbboo ko ci kenn Bila ya Igor. um, <laughs> kise ngoni. Ak musuma maam. Départ di wax naan dapat dafa war a saf góor. Cum. Bu doxee ñu xam ni góor la bu waxee ñu xam ni góor na. Mu teg ci ne. jigéen yi dafa war a jigéen. eh jigéen pire gi. Pir, waaye sa bos kese nag. da di c'est normal. moo tax nga nekk suma xarit. lu xam nga bu baax ni Aliou day hmm ñun dañu ne ay géwél. biir. damaa kër gi wàcc. kër gi ni muy ëpp na. gis nga ani bu ñëwee fii ko ñu ni bu yegsee fii nak dina xam ni kër géwël piir la yegsi kon baax te nag naa la xamal ñaar am na fu may njëkke eh, lii lan la eh, eh, toogal ëpp na waay lii la yaa moom danga koy sol magum laa xamul ma neex ci yow hmm. danga xam damaa bëgg sañse nga def lii xam sa guu ci yow dama laa xam de ngone mag ñi ne nañu jinne lu mu màgget na nga la ah da bëgg wax ko bu ma yëngal deng nga man dama ko def juste pour nga kontaan kon baax na ay ca asalaam benn takusan jëndu nanan di dem koloban àgg sam sama lu ban ak yeneen digg ci bir dem mel ni tabal la ñu lay ba ca kaam benn takusaan kenn ndala moom ko di dem ba est-ce que est-ce que accu jal mu bal jal cam jal ma sa ay dogo bu sa sayar eh sa walu nday la waaw waaw bay ma xus tuuti ci bu bay bi ay dogo fali ma wu jor kumba samba ya jolor dogo ngi fe dogo ngi fi waye dogo ngi ni ma jakar waaw waaw xanaa maa la xam bëgg la te loob la loolu. Eh, bëgg la loolu man moo tax ma lay der. sama mayaane. Oh, waaw eh. man de bëgg naa la ku njëkk jëkki baar. I love you till mille yi. tiit rek. tiit nga kay. xam nga Aliou yegg na ma ngay rapport. ah kon demal. te rek lay xaar. temps laa bëgg. wàcceel kër gi. maa koy wàcce ba zéro. kon baax na. <laughs> Eh, foo jublu yàlla na fa jublu yàlla jublu. amiin chérie. neex na. kontaan naa. I love you. Ali Baba Kumba Naar man rek ci jéeg lu loole ak jëkkëram dama ñor tàbbi desam indiwuma lii xoolal lii lii nit la ngay def ak say bët di mel ni petaaw hmm. xaw ma ani nga tudd xaw ma kaani waaye sa fo sax waaye gis nga bis boo ñëwee fii di nga xam ni maa la gën a wex xat wexoo sax yow bis boo yegsee di nga xam ku la aj ku ne ku la ajjoo ko sut Ça va mon cœur Ça va bien bébé hmm, Mon cœur, tu m'as manqué. <laughs> toi aussi, tu m'as manqué beaucoup. Oh, monsieur Mbaye, tu m'as manqué. Eh, madame Mbaye. Hmm. <laughs> Comment va la voyage Ça s'est bien passé. Bon, j'ai pu me reposer un petit peu quand même dans l'avion, donc euh, il n'y avait pas trop, trop euh, de monde euh, hyper agité quoi, dans l'avion, dans, dans donc ça va. Et puis bon, je suis avec toi maintenant, c'est l'essentiel. <laughs> Uh-huh. Et comment va ma co-épouse Qui Madame Mbaye. <laughs> Ngone Mbaye. Ngone Mbaye, elle va très bien à la maison. C'est vrai Ouais. Ah, tant mieux, je suis contente. Et elle t'attend là-bas. Hmm. Avec beaucoup de monde. Du monde Si, elle va créer une fête, rien que pour toi. C'est pas vrai. Si. Wata binti. Wara ku jambur lah. Wah sama jeg buris belonam. Ah, bara. Teru sama ko épouse rek. Lor ko doleti. Eh? Fal ma ci kaw ba ci suuf gis nga lima sal jongoma Jongo ma aller 4.4 kan. no l'est l'ouest nord sud. jongoma ma june mu. Xam nga lu neex. Te geun ma neex ci yow. Muy lan? Moy ci sar nga yor. jongoma bu ni mu. ak yag. Ta liñ ci xamul kat. Gis nga ni mu jongoma we ni. Non la wajale sa mak. peer ngeen peer ngeen. bu ànd ak moom moo def bleu turquoise ñëw fekk ma ma def bleu turquoise noir ni faax dina xam ni fii amu fi place. la ma sol yépp la sol gis nga bis bu muus bu réew yegg see fii. kan mooy muus bu réew. yaa ngi nelaw de. bi ani moom laa tuddee muus bu réew. sa vulgaire lu ci waay wax rek am na des am nga vulgaire. Ah ci jeeg bu pare. jéegu nuroo waale ak jëkkëram. fu ne. ani daa war rek de. bon écoute là si tu vois une place pour t'arrêter tu me le dis d'accord pourquoi ben, pourquoi parce que ah, j'ai une surprise surprise oui pour toi à ton avis et puis bon tu sais je sors du voyage il va falloir que je me prépare quand même je vais aller voir ma ma co-épouse je peux pas partir comme ça euh, boo boo passé station bi rek mën nga taxaw noonu dégg nga. ñëw fekk ay géwal nga ñëw nii faax ni da ngay wujjee boo ñëwee. xam nga yàqoo suñu kër gi. <laughs> gis nga sama mag yow lay wër. maa la wax jéeri ngoone maalo be samba ma ca sengi ndaat géwale ca ndaat ak géer ña ca ndaat koo ci woo rek nag ma faali ku ma ndaa ma tax ba rek kee maam na bala daan dégg fukki bala ñaari nit yi xanaa ñoo riis lii de bëgg naa ko ci jigéen bëgg naa xale géwal xam ay maamam yaa ngi dégg gis nga lii ma sol bis bu ma ko summee yaay borom. dama koy retaaye ëpp na. <laughs> waaw lool leer na wax jéeg pire laa. année bi ñëwee dina xam ne fii traite négrière fi jeex. buuba njaam gi doom na depuis. bisiographie Sénégal naa la Sénégal se situe à l'extrême ouest du daa war a yem. baal amin. del wax muus bu réew. waaw kon te muusu réew ya la. <laughs> wax muus bu réew. muus bu daa umpule. tubaab bi bëgg na góor gu ñuul bëgg na nit ku ñu rawat na góor gi wala. te xonq nañ. xam sama gi nag doobu géwal la doobu buur géwal la ba mu yegg si kii daal bu ne bëgg bu yegg see kër gi ba mel suul ak bëjëg na kër gi mel ne xam nga lan laa bëgg gis nga muus bu reew ko bu mel lañ ko def nga xalaat dañ koy sabab wala koy tama ñoo tama ma sàjjeeku de wax samay gros mots. bilaay yaay awa yaay lay jëkkër kaay toog ñu jox la sa kër. ku beer gëm la. Eh, laa ko jëlee kuy tey amoo ngërëm ñu biir. Eh, awo sama xarit da ngi noonu. père dama ne yaay gërëm yaay bete bete. yaa ñëw ba Sénégal tekk fi jeeg dem bitim réew tekk fi jeeg. naa ko bii ban la bii ban na ci la. bii ban la bii ban na ci la. harus dalek bu terkuas. bu la dem mo ngi na yat ñu yasar ni bari kala sama dema dañu Degali. Anda and tahu sunu taw bu mu yakku ke jeer ngone bersama be samba ku lima ci sengi nat degal li dañu bokk ndey ak bay bakku yonenti bi ku la bëgg ma bëgg ko waxuma nak man bëgguma ko lessé tek netek, tek ci kebelip. sama jaba jek ci non borom france ari bokum dem suzanne ari mbokum dem ariet, ani mbokum dem juliette Francois saya françoise sa mam ani jigenu messi jigenu rodriguez jigenu césar ani jigéenu Cristiano. waxal loolu. ñëw nag mbaax alol yàlla waaye xar ba la ani doo manka doo kunka doo karana doo pettala maan. doo booy de puude. sama jabar ji daal jàmm laa ko da gis na ñaareel. ñaareel xar dëkkëram ñaareel.